asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum sama mbokki Baye Fall di wax ne dafa am man yeex naa koo gis sax muy benn vidéo boo xamante ne nii mi ngi daw ci àddina bi muy ñu jël sama jëmm montage ko ak janeen wax am ko naan amul ndigal amul dara ba yëkkati baat bu ñaaw ba naan ñii ay dëmm leen di ko wax ñu jël sama jëmm montage ko. wallahi alxasim ba ma juddoo ba tey amul lu ma met lu ma gën a mettee nii barki jëmmi Serigne Touba te lii ki ko def woo na ma téléphone naan ma man maay borom site bi maay responsable bi damaa gis sànq nga dugal vidéo di wax ne borom site bi nangam maa ngi lay jéggalu giñ naa ko Serigne Touba du ko jéggal ba ilaa yow mi diini ndax vidéo bi kilifa gune jot na ci kilifa gune ci ngoon ba léegi ay kilifa yu mag ñoo may woo wallahi alxasim léegi man moom lan la bëgg jaxase ma ak kilifa yi wala lan la bëgg ba pare def li muy def am ci lim lim ci bëggoon ba pare woo ma di ma jéggalu yàlla na ma sëriñ tubaa àtteeg moom wallahi alxasim du ma ko ko jéggal ba ilaa yow mi diini wallahi alxasim kàddu yooyu dafa ñaaw amul ndigal amul dara ba pare ne ñii ay dëmm leen léegi mu jël sama jëmm montage ko dugal ko mu tas ci àddina bi mel ne man maa wax loolu te loolu du samay kàddu ku ne di ma woo Baye Fall bu ne di ma woo ñi ma dëkkal nga xam ne ay Baye Fall lan ku ne ay kilifa yu mag di ma woo ci ngoon ba léegi dinañ ma maa ngi ñaawlu kàddu yi nga wax man maa ngi naan jan kàddu la ñu naan ma baat bi nga yëkkati naan amul ndigal amul dara bay wax naan ñii ay lii leen ma xool vidéo bi gis ab site montage ko ñu envoyé ma ko ko sëñ Tuubaa ne nañu ko yàlla du ma ko ko jéggal mukk ba ilaa yawmi diini wallaahi asim te nag lii képp koo bépp Baay Faal boo xam ne duggoon na ci sa nopp nga jàpp ne man ci sama làmmiñ la jé génne maa ngi lay jéggalu tey xam ne génnewul ci sama làmmiñ kàddu googu du ma ko wax mukk Tuuba dëkk fi laa juddee fi laa màggee fi laa yaroo fi laa jànge baat boobu lu lu ma am sëñ Tuuba ma ko defal buñ yàqoon li ma yor lépp teewul ab taalibe laay doon booba laay laay gën a jug ñafe ji waat ndax ndigal ndigal la waaye lii nii ñu ma defal nii jël ay waxi jàmbur montage ko ak sama jëmm metti na ma trop trop trop trop nag te ki def lii maa ngi koy maa ngi koy bàyyi ci loxoy suñu borom. giñ naa ko seexul xaddim bu ma doon sukkuraat ci bay sukkuraat ñu tiim ma ne ma jéggaleel kii du ma ko jéggal. barke jëmmi Serigne Touba ndax kilifa yi ci jot moo bari mën nan laa bañ a dóor mën nan laa bañ a yóbbu police waaye mu dugg ci seen nopp yëg-yëg ga am yow ci sa jëmm mën na laa yàqal lu ne te lii mu def nii. metti na ma trop wallahi lancim metti na ma trop mais maa ngi koy bàyyi ci loxoy suñu borom muy site bi ko dugal